bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima ci wàllum xarala gi suñu doomu ndey jaawo jàllo mbokk yi gannaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala ñu julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñu xéewalal ñaari xéewal yu toll nuy nelaw ak jaamu yàlla nelaw bi nga xamante ne moom la ñu buur yàlla tabaraka wa jagleel bañ ko def mu nekk xéewal bu njëkk ndax moo ñu ne man yàlla maa leen defal nelaw mu doon dallukaay ba ngeen di dalloo ci seen jamono bi ngeen di nelaw kon bu ñu yàlla waxee wa ja'alnaa nawmakum subaatan loolu mooy li am yàlla moo def nelaw mu doon dallukaay ju mucc ay bañuy ñuy dalloo su ko defee mu doon xéwal joo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko yenkeewal ba tax na yow jullit bi saa yow ko ci nelaw boobu yàlla xéwalal la danga ko war a sant danga ko war a sant ci xéwal jooju noo koy santee nag moom la la yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne la saa yoo yeewoo ci nelaw bala yàlla wërsëgal nga def ko na ko war a sante mooy danga nga war a wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur moo ne ñaan bi lu muy tekki mooy da nga war a wax ne mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla ndax moom dong mooy buur bi nga xamante ne moo ma faat ci nelaw gannaaw ci mu delloo ma sama ruux te bu ma jógee ko ci dund bi ci moom dong ci lay dellu du ma dellu ci kenn duñ ma yóbbu fenn moo tax léeg-léeg buñ ne diw faatu na ñu ne ko dinañ ko jébbal boromam ndax kay boroomam kooku dong lañ ko war a jébbalul te mooy buur bi tabaraka wa moo tax yow it ngay wax njeexantalu ñaan bi wa ilayhi nusuur te ci moom dong la ñuy dellu tabaraka tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee azkar bu ni mel kon yow jullit bi xamal ne xéewal bu toll ni lala sa borom xéewalal mu doon nelaw nga jëfandikoo ko kenn fayeku la dara yonentu bi nee la boo noppee ci xewal jooju yàlla xéwalal la danga ko war sant kom nim la ko jàngale nga tàmbalee sa bés bi ci sant yàlla ci baat bi nga xamante ne dafa bokk ci xeetu azkar dafa bokk ci xeetu tuddu yàlla yi nga jógee foofu dem ràmpilil ñaareelu xéewal bala yàlla xéewalal te moy julli farata bi nga xamante ne ca ngay déggee noddukat bi nela la assalaatu xayrun min an nawm audience ba ngeen war a am seen borom moo gën nelaw ba ngeen nekkee assalaatu xayrun min an nawm rendez ba ngeen am borom moo gën nelaw ba ngeen nekkee assalaatu xayrun mi an nawm la ngeen wala rencontre ak seen boroom lal ba ngeen tëdd di nelaw jokkalekaay ba leen di jokkalek seen boroom te mooy asala moo gën nelaw ba ngeen nekkee kon képp ku dégg noddkat bi di nodd ci jàkk ja wala ci jumaa ji ba mu àgg ci asalaatu julli asalaatu audience asalaatu jokkalekaay ba leen di jokkale ak seeni boroom audience ba ngeen am ak seen borom xayrun moo gën mina nawum nelaw ba ngeen di nelaw kon yow jullit bi ginnaaw ba nga déggee convocation bi da nga war a jóg sa kaw lal laablu géemu dox séq ab jeego ba nga àgg ci jàkk ji dem am rendez-vous bi nga war a sëq sa borom subhaanahu wa su ko defee noonu la ñuy remplir nga condition ba nga xamante ne moom nga war a mën a jëflanteeg sa borom mu doon njëlbeenu bés bi su ko defee mu doon ñaari xéwal yi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa mala koy xéwalal yaa ngi ni remplir nga condition yooyu ci anam bu mucc ayib ba tax na noonu lañ leen di fàttali ko waxu boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah mu ne la yow doomu aadama innama anta ayyaamun xamal ni bés ba ngay dund moo la fi taxabaay ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne kullama zahaba yawmin bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la denc ci sa dund bi beneen boroom xam-xam ñëw waxaat la ne te mooy abdullahi bun awn yal na ko buur yàlla yërëm moom it nee naas dawa aw dikkiru naas daan nee na di wax li nit ñi loolu feebar la jàngoro la tooke la waaye nag wa dikrullahi dawa di tudd yàlla di fàttaleku kawteefu yàlla di sàbbal yàlla say làmmiñ nee na loolu mooy garab médicament bay faj bay faj jàngoro li ci xoli jàngoro yu ci xol yi tudd yàlla moo koy faj jàngoro yu ci xel yi tudd yàlla moo koy faj jàngoro yu ci cër yi tudd yàlla moo koy faj batax na yàlla nee na alladina amanu gaayaa ngi nii ñoo xamante ne dañoo gom yàlla ñu gom ne yàlla mooy seen buur yàlla mooy yàlla amul kenn ku fi nekk di yàlla ku buur bi tabaraka wa amul dara lañ ko dendale amuñu dara lañ koy bokkaale subhaanahu wa ta'ala subhaanallahi amma wa subhaanallahi amma yasifun yàlla set na dañ na ci lépp luñ koy melale te du melokaanaam ci teg ci lange ñal na yàlla buur bi nga xamante ne dañ na sori na ci lépp luñ koy bokkaale subhaanahu amma yushrikuun neena na tudd boroom jooju nag mooy lay faj jàngoro yi ci xol yi walla jàngoro yi ci xel yi walla xattaa jàngoro yi ci jëmm yi loolu lumuy faj médicament wu nasaraan bi lottu na ngir mu faj ko tudd yàlla lamuy faj ci jaramu doomu aadama dama médicament wu nasaraan bi lottu na ngir mu faj ko ndax yàlla moo ne alladina amanu sama jaam yaa ngi nii ñoo xamante ne bokk na seeni melokaan dañoo gëm yàlla gëm yàlla bi nga xamante dañ ka wéttal ci nguuram ñu wéttal ko ci melokaanam ñu wéttal ko ci turam yu sell ak melokaanam yu kawe yi ñooñu la yàlla bëgg a wax seen màndarga fii ci aaya bi mu ne alladina gaa yaa ngi nii ñoo xamante ne amanu gëm nañu yàlla te watatma inn qulubuhum bi dikrillah ñu matal ñu feesal ñu root seen xol ak seeni caniveau ya nekk seen biir xel ñu duy ko bem fees dell ci tudd yàlla léeg nga fekk leen ñuy jàng alquraan léegi-léegi nga fekk leen ñuy tocc toccaaral di tudd yàlla ak xeetu tudd yàlla yañ koy defee léegi-léegi nga gis ñu tànn benn ci turu yàlla yu kawe ñu di ko tudd léegi-léegi nga gis ñu sànni seen bët aj ko ci kaw ñuy xool kawteefu yàlla la nekk ci jaww ji la nekk asamaan ba ñu tiim nii ñu ne lu ñu tiim nii am na yeneen juróom ñaar ya ko féete ci kaw te bët mënu koo pénétrer bët mënu koo gis xamoo fii la commencé xamoo fii muy milieu xamoo fee mooy fin bi xamuloo fu mu commencé xamuloo fu nekk ci digg bi xamuloo ana fan la jeexee ngay xalaat loolu di xool sa bët ci kawteefu yàlla léegi-léegi nga gis yenn documentaire nga gis ay montagne yoo xamante ne kenn du xam lii kañ la fi ne dëj ku ko fi placé xamoo ko kañ la fi ñëw xamoo ko bu fi jógee koo tamit nu fi fiy jógee koo xamoo ko nga xalaat yu nga ne lii moom yàlla dong moo ko man yàlla nee na ñuy xelaatee sama te xelaat wi bu ñu mel nii ah ñooñu dee dama ne xanaa ala bi zikrillah ci tuddu yàlla ala bi zikrillah xanaa du dama ne ci di fàttaleku yàlla tatma innul qulub xanaa du ci la xel di dalloo bu fekkee ne tontu bi mooy axa kon ci tuddu yàlla la xeli doomu aadama di dale ci tuddu yàlla ci la xolu doomu aadama di ame tranquillité ak istiqraar ak itma na xel bu dal kenn du ko am ci lenn fu dul ci tuddu yàlla di fàttaliku yàlla jël cofeelu yàlla kastre ko sa biir xol jël cofeelu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquran ak sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ak mboolem xeetu nit ñu baax ñi nga kastre ko sa biir xel nga kastre ko sa xol bu dee lii mooy la nekk ci sa biir xol xamal ne yow yaa ngi faj sa xol ak médicament joo xamante ne loolu mooy médicament ba jara utiliser ngir faj jàngoro ya nekk ci biir xol kon bu dee loolu la ñu jàppee ko nii xam ne la boroom xam-xam di wax rekk mu ne zikiru naasi daa un di wax li ci nit ñi di jëwu nit ñi di wax ayibu nit ñi di wax am amu nit ñi walla seeni ñàkk walla seeni nekkin nee na loolu tooke la feebar la waaye mu ne wa zikirullah di fàttaliku yàlla di tudd yàlla nee na loolu dawaun loolu mooy médicament bay faj góom ba nekk ci xol loolu mooy faj feebar ba nekk ci xel bi wala ci xol bi yàlla daal di feddali ci alquran nee na alladina amanu gaayaa ngi nii ñoo xamante ne ñoo gëm yàlla wa tatma'innu qulubuhum ñu remplir seen xol ci tuddu yàlla ak di fàttaliku yàlla yàlla ne ala dama ne bi dikrillah ci tuddu yàlla walla di fàttaliku yàlla tatma innal qulub ci la xel di dalee bo dee tontu bi mooy axa kon nañ leen jël tudd yàlla ak ko yàlla di ko dalale suñu xol ak suñu xel moo gën ñuy tuddu lu ci li ci nit ñi te jamono ji nag li ci nit ñi nag moo nekk débat wu pénc bi moo nekk débat wu rajo yeeg télé moo nekk débat ci lépp nag waaw nañ leen moytu di fagul suñu bopp loo xamante ne ëllëg keroog bés pinc buñ ñu ko fayee du doon lu ñu neex ba tax na ñu di leen fàttali ne rek ñu ngi ci weeru tabaski bésu talaata ji di tey moo tombeek ñaar fukki fan juróom ñaar ñaar fukki fan ak juróom benn ngeen jéggal ma waaw bés ni ki talaata bi moo tombek ñaar fukki fan ak juróom benn le vingt six ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante tamxarit quinze jours fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom moo des suñu digganteeg tamxarit ñu di leen fàttali ne rek moo tombe gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante cinq ans gàddaay yonent bi ak léegi mooy mille quatre cent quarante cinq ans di leen fàttali ne bésu talaata bi di tey di yoma sulasaa moo tombeeg ñaar fukki fan ak juróom benn le vingt six fàttali ne rek des na suñu digganteeg tamxarit di ashura fukki fan ak juróom waaw fukki fan ak juróom moo des suñu digganteeg ashura di quinze jours ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala bi buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buñ ne asura ñu ne tamxarit buñ ne tamxarit nag ñu ne juróom-ñeenteelu bés bi ak fukkeelu bés bi juróom-ñeenteelu bés bi mu am la ci xew waaye fukkeelu bés bi tamit mu am événement bu mag la ci xew ba tax na ñu bàyyi ko xel ñu waajalal ko ci mbaaxu yàlla buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem tamit yal nañu fi bàyyi ñu ñaan yàlla suñu borom lépp lañ fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg bés boobee fukki fan ak juróom mooy quinze jours moo des suñu digganteeg tamxarit incha allah bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi xadis bañ leen digtal tey mooy xadisu sahaabi bi ñu naan anas bun malik radiyallahu an anas bun malik radiyallahu an nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu ida araada allahu abdan xayran istacmalahu fa qiila kayfa yastacmiluhu ya rasulullah qaal yuwaffiquhu li amalin saalihin qabla almawt rawahu tirmisi mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot anas bun malik radiyallahu anhu moo ñu baaxee xadis bi nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ngénneel ba mu fees dell jëmale ko ci xeet wi moo baaxe anas bun malik xadis bu am solo bi anas daal ñu ko génneel radiyallahu anhu yal ko buur yalla gërëm anas nee na bi sallallahu alayhi wa moo baaxe xeet bi ne leen ida araada allahu abdin ida bi abdin xayran anas nee na bi daf ne sallallahu alayhi wa sallam ida araada allahu bi yàlla de bu nammalee jaamam yiw da koy fa qiila kayfa yastacmiluhu ya rasulallah anas nee ñu laaj yonent bi ñu ne ko naka la buur yàlla di jëfloo doomu aadama woowu qaal yonent bi ne yuwaffiquhu li amali saalix qabla al mawt da koy yenkeewal jaam jooju muy jëf-jëf ji yiw lu jiitu muy faatu mbokk yi bu ñu taxawee tuuti war def taaliqaat war a taawi hadis bi tuuti war koo andil ay taaliqaat dinañu gis ne la yonent bi baaxe askan bi ci maana hadis bi loolu mooy lu wér ndax yàlla buur bi tabaaraka wa taala cofeel bu mu am ci doomu aadama ngir ne moo ko bind waaye moom la ci gën a sopp xeetu mbindaafoon ya yàlla bind doomu aadama la gën a fonk te moom la gën a sopp ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla xam-xam bi ni moo tax mu ne ñu ida araada allahu bi abdin xayran istaamalahu yàlla buur yàlla buur yàlla tabaraka wa de bu namee ci jaamam yiw da koy jëfloo saxaaba yi daal di laaj yonent bi ñu ne ko fa kayfa yastaamiluhu ya rasulallah ana nan la yàlla di jëfloo doomu aadama woobu mu namal yiw qaal yonent bi yuwaffiquhu li amali saalih qabla mawt da koy yenkeewal da koy jàppandalal jaam bi muy jëf-jëf ju yiw jëf ju baax lu jiitu muy faatu naam kon ndegem yàlla bu nammalee jaamam yiw da koy jëfloo lam koy jëfloo nag mooy jëf ju yiw ba tax na bu ñu demee xool ci alquran dinañu gis bur yàlla mu ñuy wax ci téere bi ne ilayhi yasaadu kalimu tayiba wal amalu saalihu yarfauhu fa moom yàlla la kàddu yu baax yu teey di yéeg di yëkkatiku di jëm waaye moom yàlla mooy xool jëfu doomu aadama yu yiw mu di ko ñoddil boppam mu ko jikkati fa yàlla kon bu ñu yonentu bi ne yàlla bu nammalee jaamam yiw dakoy jëfloo saxaaba yi laaj ko nam kay jëfloo mu ne da koy jàppandalal jëf ju yiw kon manees nañoo déggee ci xadis bi ak la yàlla ne wala amalu saalihu yarfa'uhu fa moom yàlla la jëf yu baax yi di teeree ji kon bu nu bi ne bu yàlla namee ci jaamam yiw da koy jëfloo te nam koy jëfloo mooy da koy jàppandalal jëf ju yiw balaa muy faatu kon manes nañoo déggee xadis bi lu nekk la te lu am la tamit bur yàlla tabaraka wa taala bi léegi ci alquran mu ngi ñuy wax ci njeexantalu suratul kaf fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan saalihan wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada képp koo xamante ne wóor na la gëm nga ko fas nga ko sa xol du jaas mukk fokk nga dajeek sa borom sa borom dina dajeek yow ah te yow dinga dajek sa borom yàlla lam lay jëfloo la mu sàkku ci yow nga jëf ko mooy fal yaamal amalan saalihan na nga jëf-jëf ju yiw te tamit wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada bul bokkaalek yàlla lenn ci nang koy jaamu jaamu yàlla ya ngay jaamu yàlla bokkaale na si deñ set ci wéj wéj wéj wéj wéj wéj bokkaale bu lenn lii la yàlla wax ci képp koo xamante ne nar nga jëf-jëf ju baax boo jëfee jëf ju baax bokkaale taq ci yàlla ne bugguma suur na soxlaw ko waaye boo du bokkaale jëf ju baax tamit dina la jafe noonu ngay déggee maanaa bi jëf ju baax ba yàlla di reconnaître mooy jëf ju baax bi nga xamante ne bokkaale raxu ci ndax ñaar yi la wax képp ku gëm ne dinga dajek man na nga jëf-jëf ju baax man kaana yarju liqaa rabbihi képp ku gëm nga fas ko mu wóor la ne du jaas dinga nga dajek man mi di sa borom kon la ma ñaan la may sàkku ci yow la ma lay digal mooy fal yaamal amalan saalihan na nga jëf-jëf ju baax te jëf ju baax jooju mooy lépp lu yàlla ne yonentu bi ne lii mooy jëf ju baax loolu moy jëf ju baax bu ñu yàlla waxutoon ne lii mooy jëf ju baax kenn duñu ko xamal ndax bu dee ñun ak jëf ju baax rekk duñ ko musa xam gannaaw bum ñu yónnee yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw nañu lii la yàlla reconnaître fa moom ne mooy jëf ju baax kon nañ leen jàppee loolu mooy jëf ju baax bu ñu jéggaani jëf ju baax ci yeneen xeet bu ñu jéggaani jëf ju baax feneen fu wuuteeg njàngale yenentu bi ak doxalinu saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain bu ñu jéggaani jëf ju baax lu wuuteeg suñu mag yu njëkk ñi nañ doon jëf mu di jëf ju baax képp ku fi bàyyi lii nga lim jéggaani jëf ju baax feneen ak neneen yaa ngi perte sa yaa ngi perte sa temps ah ndax yàlla mi xam jëf ju baax mu xamal ko yonent bi ne ko lii laa reconnaître ni loolu mooy jëf ju baax yonent bi xamal ñu ko mu leer nañ amul dara la ko xamal ci lu ñuy jegeloo ci xéewalu yàlla lu dul bi baaxee na ko askan wi waaye amul dara laka ko yàlla xamal loñuy ñuy soril ci xéwalu yàlla lu dul wax nañ ñu ko ngir ñu moytu ko leer na nañ li fi nekk kañ xam ko jëfe ko walla bañ koo xam ñàkk kaa jëfe walla xam ko bañ koo jëfe wala xam ko jëfe ko loolu rek a fi nekk buur yàlla tabaaraka wa taala ne ñu képp ku gëm ne di dajek man na nga jëf-jëf ju baax te bul bokkaale ki yàlla dara ci xeetu jaamu yàlla ya ngay jaam bi léegi bokk na ci amalu saalix ba yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ne ba yàlla namee ci jaamam yiw da koy jëfloo saxaaba yi ne ko num koy jëfloo yonent bi ne ko da koy yenkeewal jëf jëf ju baax da koy jàppandalal jaam boobu di jëf jëf ju baax laata muy dee walla laata muy génn àdduna naam bokkoon si jëf ju baax jooju buur yàlla tabaraka wa taala mu ñuy wàcc njeexantalu suratul bayyina inna alladina amanu wa amilu saalihaati ulaika hum xayrul bariya yàlla nee nañu ñi nga xamante ne dañoo gom yàlla wéetal yàlla ci nguuram wéetal yàlla ci moomelam wéetal yàlla ci turam yu sell ak melokaanam yu kawe yàlla nee ñu gëm yàlla gom yàlla winimel mel bokkaale wu ñoo ko yàlla dara ca nañ ko gome yàlla nee na ñu toftal si jëf ju baax jëf ju yiw la ma reconnaître xamal ko yonent bi yonent bi baaxee leen ko ñu di ko jëfee nii yàlla nee na ulaa'ika kuréel wini mel hum ñooñu tigi xayrul bariya ñii ñoo am mujjantil bu rafet yàlla ne jazaa'uhum seen peyoor nag ëllëg bés pénc ko jox kenn mu di leen fay ku leen di fay mu ne inda rabbihim seen peyoor baa fa seen boroom waaw seen boroom di yàlla kooku ñu gëm kooku ne leen jëf ju baax nii laa ko bëggee yenentu bi jàngal leen ko ñoomit ñu teg ci seen tànk ñu di jëf-jëf ju baax comme na ko yonent bi jàngalee salaa sallam yàlla nee na jazaauhum seen peyoor inda rabbihim fa seen borom dong lay bàyyee ko waaw du jox malaaka mu fay leen du ma jox yonent mu fay leen du ma jox jinni mu fay leen du ma jox kenn mu di leen fay waaye man yàlla maa leen di fay moo tax aaya bi ne jazaauhum seen peyoor inda rabbihim fa seen borom lay tukki lay doon seen peyoor jannaatu adinin arjanna ba jege fa yàlla arjanna ba jege fa arsh nekk arshur rahman jannaatun adin arjana bu jege laa leen di fay tajri day daw min taxtiha ci suufu arjana yooyu al anhaaru ay sawndew ndox ak sawndew meew ak xeetu luxe bi nga xamante ne bët musu koo teg xel munu koo xelaat xool munu koo jàpp te nopp musu koo dégg janna maa laa aynun raat wala uzunun samiat wala xadara ala qalbil basar yonent bi sallallahu sallam nee na am na xéwal ya nekk fa arjanna la but musul gis la nopp musul dégg la xol munut imaginer moo loolu mooy lan xam yàlla rek a ko xam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii mooy maana xadis ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi sallam nee na ci xadiisu anas bun malik radiallahu anhu ida araada allahu bi abdin xayran bu yàlla namee ci jaamam yiw istaamalahu da koy jëfloo fa qiila kayfa yastaamiluhu ya rasulallah saxaaba yi daal di laaj yonentu bi ñu ne ko ana nan la yàlla di jëfloo jaam jooju qaal yonentu bi ne leen yuwaffiquhu da koy jàppandalal li amali saalix ci jëf ju baax qabla mawt balaa muy faatu kon ñu nit ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yuwaffiqana li amalu saalih qabla mawt yal na ñu yàlla jàppandalal yal na ñu yàlla yënkeewal yal may wërsëgal ñu mu di ñu jàppandalal ñuy jëf-jëf ji yiw laata ñuy génn àddina su ko defee mu doon nammeel bi nga xamante ne yàlla da koy namm si ñun amin ya rabbal alamin mbokk waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jox yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar yaa ngi ni taxaw ñu di leen ñaanal yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma aminna fi awtanina wa wa wulata umurina allahuma ya rabbi ihfada biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin ma tasmaun baraka allahu li wa lakum fi alqurani alazim wa nafaani illahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu